Ives Zale maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Ives Zale nga nekk coordonnateur bu regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal regroupement bi bi ngeen koy sos lan moo ko tax a jóg exactement. waaw regroupement bañ koy sos de dañoo bëggoon ndaw yi nga xam ne dañoo jàng ba am seen liaas ñu am ñu xëy maanaam ñu am ci ñu jàpp parce que boobu dañoo seetlu woon ni te ba léegi nii la gën a yokk te ndaw yi dañuy jàng ba pare am seen liaasa mais duñu am liggéey te loolu noonu état bi parce que état moom moo war a teg politique d' emploi boo xam ne day accompagner nit ñi mën a am ñoom liggéey mais malheureusement état bi dafa seetaan ndaw yi état yi daa nekk ci ay politique politicienne bàyyi ndaw yi nga xamante ne tey Sénégal soo leen xool su dee Sénégal su fekkee fukki nit nit yëpp ay ndaw lañ mais Sénégal su dee tamit fukki fukk euh, fukki ndaw lañ juróom juróom ndaw yëpp ñu ngi bëgg liggéey mënuñu ko am mais dañoo seetlu état bi loolu da koo soofantal liggéeyanti wuñ ci doxuñ ci ay tappale rek ak ay ay ay ay ay wax yi kese lañ ciy def. waaw ñu gis ni kon euh, regroupement bi euh, ñan la regrouper est-ce que euh, jeunes diplômés yi nekk Sénégal yëpp dañ cee bokk ñan ñoo si nekk exactement ak ñaata lañu. waaw fi mu toll nii presque am nañ juróom-ñeenti junniy ndaw yu ci bokk leneen li ma ciy dolli mooy ñu xam ne regroupement diplômé sans emploi du diplômé yi nekk Sénégal kese. Mhm. diplômé yi nekk ci diaspora bi tamit ci lañ bokk parce que ñooñu tey. ñu doon picc nga ci ci kaw waaye xel maa ngi koy suuf ñoom ñëpp tey su leen sañoon dañuy ñëw Sénégal. Mm-hmm. mën fay nekk. di liggéey dégg seen waajur di gis mbokk. parce que tey amul kenn koo xam ne dem bitim réew da laa gënal wala nekk fa gënal na mais ñàkk pexe la fa yóbbu mais tam nit ñi soo leen bëggee téye da ngay am loo leen jox parce que nit ki soo ko joxul dara mënoo ko toog loo mu toog parce que dañuy xëy di wut donc looloo waral mu demee noonu mais tey regroupement diplômés sans emploi tey dafay nekkal bépp ndaw ku ñëw ci association bi nekkal nañ la fi ku ñuul bokk tamit nekkal nañ la fi donc képp koo xam ne tey am nga jafe-jafe am liggéey Sénégal wala bitim réew na nga doon sénégalais. Mhm. ñun dañ lay jàppale dañ lay gunge. Mm, waaw mais yéen diplômé sans emploi am ngeen xaalis de comme que da ngeen di organiser ay tournées à Paris ah Yves yéen tamit. waaw loolu de question de organiser tournée ñoo xam ne dañ dañ ñu faa nekkal. waaw ne xam ne dañ ñuy jàppale. waaw euh, Euh, lu toll juróom-ñeenti junni nit ku nekk tey su su su su nattee euh, téeméer ñaar lay doon donc ñun tooguñu. Mm. fi ma wax ak yow nii am nañ fukki GIE yu ñu taxawal euh, juróom fukki GIE yu ñu taxawal. Mm-hmm. fi ñu nii am nañ lu ëpp téeméeri ndaw yoo xam ne tey wutal nañ leen NINEA ak registre pour ñu mën a nekk ci ci ci entrepreneuriat bi. Mm. kon ñun nekkul ñoo xam ne dañuy tëdd di nelaw dinaa non liggéey amu fi ñun dañoo xam ne ñoo xam ne ñun xaaruñu état. mais nag état daf ñu war a gunge dañu war a jàppale parce que ñun tey su fekkee ñun association simple kese ñoo mën di teg ay GIE mën di créer entreprise mën di gunge ay ndaw ba ñu am financement état bi a kon kon euh, yi ngeen demoon seeti leen ci diaspora bi ñoom dañoo bëgg a ñibbi si fii ci réew mi euh, kon seen nekkin ci bitim réew neexul trop noonu wala. non du neexul trop mais daf leen gënalul parce que tey nga dem bàyyi sa yaay bàyyi sa pap bàyyi say mbokk doo fekkee màggal doo fekkee gàmmu doo fekkee tabaski doo fekkee dëj loolu neexut te loolu ñàkk pexe la su nekk soo amul lu la gënal doo sori say mbokk sori mbokk yi nag ñàkk pexe la moo tax ñenn ñi dugg ci géej gi bari ji des ñenn ñi ci àll bi bari ji des parce que lépp ñàkk pexe la parce que ñàkk ñàkk am luñ dee fii moo leen fa tax a toog am na ñoo xam ne jàng nañu pare nañ na seen diplôme mais bëgg nañu ñibbi mais mënoo ñibbi si ñoo toog di xoole il faut nga am ci loo jàpp mm-hmm. loolu la li li tax ndaw yi nekk ci réew mi nangu ñu fay toog moo tax ndaw ndaw yi nekk ci bitim réew nangu ñu fay ñib si loolu la mooy maanaam ñàkk liggéey ñàkkal fayda bi xam ne moom état Sénégal def na te di seetaan ndaw yi a accompagner ndaw yi accompagner suñu ñëwee ci administration publique fonction publique recrutement yi yaa ma neex la ay ay politiciens la ñu jël ak seen i mbokk soo demee ci société nationale ak entreprise publique yi c'est la même chose tey Sénégal nu mu mën a nekkee tey ay maïsra manqué ba mhm. tey nit ñu war la atte ci juróomi fan ñu lay atte ci juróomi weer wala at avocat manqué Sénégal mhm. notaire manqué Sénégal huissier manqué Sénégal médecin manqué Sénégal tey ñu am faculté de médecine ndaw yi nekk fi jàng am seen diplôme pharmacie manqué pharmacien manqué te pourtant ndaw yi jàng am diplôme pharmacie ñu ngi fi ingénieur ñu ngi fi ñuy def ay BTP ñu ngi fi jàng am ay diplôme ak leneen ak leneen yoo xam ne xaaj bu jeex yoo xam nga ni yoon mooy fu am junni nit war nañu am benn policier mhm. yow yoon dafa ne fu am juróomi junni nit war na am benn pharmacien yoon dafa ne fu am fukki fukki junni nit war na am benn magistrat mais loolu lépp respecté wuñ ko loolu lépp respecté wuñ parce que état bi jëlul priorité mu def ko ci ressources humaines dëkk boo xam ne mu ngi am pétrole am gaz premier investissement mooy ressources humaines ressources humaines yi lañu war a toppatoo accompagner leen te principal ressources humaines ndaw yi la mais ndaw yi fekk dañ leen bàyyi dañ leen beddi boolewuñu leen ci laala liggéente wuñ leen jàppale wuñ leen donc financé wuñ leen comme ni mu waree tey da ngay xool lu mel ni DER tey mi nga xam ne ne abisé yi ba mu fi ñu yóbbu mu ngi def ay effort mais tey am na loo xam ne mënuñu ko parce que tey mënoo mënoo am mënoo soxla juróomi téeméer ah am fukk sa loxo donc loolu léegi Yves pour yow euh, lan la état mën a def pour ñuy euh, jeunes yi volontaire jël gaal yi pour dem Europe ak tamit ñi nga xam ni ñi ngi Europe euh, bëgg a ñibbi si dellu si lan qu'est-ce qu'il faut exactement pour loolu mën a nekk. waaw loolu pour mu mën nekk il faut état bi teg ay ubbi concours yi. retraités yi nekk administration ñu génn leen. yokk budget financement yi. yokk budget convention état employeur parce que loolu mooy dimbale entreprise yi. loolu lay tey lépp lépp boo xam ne ñu woowee profession libérale mooy métier nga xam ne état fayul salaire lu mel ay avocat lu mel expert lu mel ni notaire ñu ubbi ko ba nit ñi mën ci dugg nekk fu nga féetewoo nga dem fa ñi mbay mi ñu jàppale mën a am suuf parce que tey ku fi bëgg bay amoo suuf état jàppale leen loolu état mën na ko ñi nga xamante ne tey dañoo bëgg a dem ci élevage bi état jàppale ñi nga xam ne tey dañoo bëgg a dem ci napp gi état jàppale leen ku ci nekk fi nga bëgg dem état jàppale leen parce que c'est possible suñuy organiser budget bi man nañ ko def mais su fekkee dañoo toog di seetaan ndaw yi loolu problème lay indi moo waral dëkk bi nekk ci sous tension parce que ñëpp a mer a mer ni mer mer gi yëpp li ko waral mooy da ngay xëy ponkal mu jëm amoo ci la law jàpp te loolu c'est un problème il faut qu'on en parle tax ñu woo président ñu toog def concertation ñu mën a wax ci loolu. mais waaw léegi ñu ñu ngi bind nañ président loolu def nañ ko mais président recevoir président recevoir ay association ak nit ñoo xam ne ni ay juróomi nit hmm. du ma tudd ay tur ay association fukki nit ak juróomi nit yoo xam ne nii tekkiwuñ dara ci dëkk bi ñun chaque année état bi dañ ko jox ay magistrat chaque année bi état bi ñun suñuy membre ko ciy jox ay ay ay fonctionnaire ENA année dañuy jox état bi ay avocat suñuy suñu membre association donc état bi tey war nañu mën a gëstu war nañoo mën a gën jox ñu cër bi ñu yelloo war ñoo toog fii président di recevoir ku ne te ñun di recevoir uñu fa lañ teg noonu léegi Yves Zale ngeen bëgg a organiser jeudi bi euh, bu 10 heures jotee benn marche jëm ca palais ba marche bi naka lay demee est-ce que am ngeen autorisation wala amoo leen autorisation. waaw ñun li ñu yoon may def nañ ko maanaam bind nañ préfet yëgal ko dañuy def marche parce que marche bi c'est une marche pacifique c'est une marche sociale ce n'est pas une marche politique ce n'est pas une manifestation violente on veut nous faire entendre dañoo bëgg président dégg ñu parce que dañ koo bind bindati ko ba solo moo tax ñu doxantu ba buntu pare ne président ñu ngi fi amuñu liggéey suñ fa jógee dem ministère de l' loolu la ñu fas yéene def incha allah suba ak jàmm dix heures dix heures léegi euh, yow euh, sànq sax yaa ngi koy wax ci biir yi wax loo xalaat ci DER ak ANPEJ parce que nguur gi daf leen a teg bokk na ci politique bi état bi teg pour xeex chômage des jeunes euh, sànq nee nga DER ñoom amuñ koppar yu doy moonte day seen am ngeen ak ñoom collaboration mais nee nga seeni koppar doyul est-ce que mën nga ñëwaat ci lool ak tamit taxawaayu ANPEJ. waaw DER moom mën naa cee wax li ma ci mën wax mooy ñu ngi def effort. te abisay ba mu ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla ñun boole nañ lépp lu ñuy def boole nañu si ba jàppale nañu am na ñun ñu ñu financé am na yoo xam ne tam ñu ngi toog di xalaat pour ñu financé leen mais nag tamit financé tamit moyen moo koy def parce que mënoo financé loo yorut parce que mënoo joxe loo yorut der su fekkee seen seen budget doyut wala fekkee tamit euh, liñ fa soxla tey ñu am ay centaine de milliards de demande de financement ñu am benn cinquante milliards wala lu ko ëpp tuuti wala lu ko yées tuuti loolu doyut kon il faudrait que état bi yokk seen budget pour que ñu mën a financer projet jeunes yi parce que jeunes yi su ñu leen financé dinañ liggéey su ñu leen financé dañ fi toog dootuñu dem mais ANPEJ mënu ma cee wax lox mënu wax ci ANPEJ. Mhm. ANPEJ parce que bind nañ leen woon nañ leen wax nañ leen directeur bi conseil présidentiel gis nañ mu ne mu jàppale ba tey fii mu waxee wut gisuñu ko dégguñu ko soo ko wooyee doo ko jot soo ko bindee message tontu kon kooku mënu ma cee wax ANPEJ xamalu ma leen dara jàppale wuñu wu ñu faale wuñu DER nag mën naa ko waxal parce que DER jàppale nañu. Mhm. mais nee nga seen koppar doyul. waaw seen koppar seen budget dañ ko war a yokk ni ñu war a yokkee tam budget convention état employeur. mais am na ñu jot a financé si seen. waaw am na ñu jot a financé ñaata la ñu financé ak ñaata euh, la ñu jox waaw. juróom benn fukki nit lañ financé ci lu toll million. ci seen regroupement bi. ah yéen ñëpp kay li tax ngeen yor xaalis bi yéen chômeurs yi. waaw ah, ñu ngi sant yàlla <laughs> waaye dana xamal juróom benn fukki mm. am nañ lu ëpp juróom juróom-ñetti juróom-ñetti junni mm-hmm. yu toog di xaar. mais mais financement boobu bi ñu bi ñu waree tànn trente personnes ci seen regroupement bi financé leen euh, comment ça s'est mbaa indi ay jafe-jafe ci biir. non amul benn jafe-jafe parce que ñun lépp lu ñu def dañ koy waxtaanee. Mhm. lépp lu ñu def dañ koy waxtaanee. donc loolu amul amul benn problème waxtaan ba jiboo seen am ñun amuñu amuñu problème. luñ ñu jox mu xam nañ ni ñu ko mën a gérer parce que mécanisme bi yi ñu teg nañ mécanisme bi ba pare ku nekk xam-xam-xam ko la jiitu. d'accord da ngeen koy def par ordre daal. voilà euh, Yves kon su weesoo marche bi euh, lan ngeen fas ne def ngir euh, président mën a taxaw ci jafe-jafe diplômé yi sans emploi yi fii ci Sénégal. waaw ñun daal li mën a xamal mooy bàyyi moom fas yéene ko def plan d'action bi dina yaatu. Mhm. suñu jógee ci marche bi danañ organiser grève de la faim danañ woote une mobilisation nationale et internationale ñu lañu ñëpp ñu ñëw ci parce que li bëgg mooy président toogoo ñun ñu wax ko la moo suñu problème mu faj ko loolu nag su amut ñun duñu baax. loolu su amul du ñu baax. du ngeen bàyyi daal. waaw si la bàyyi. il bokkoo leen si ñu faral sonk moo tax ngeen di yëngu-yëngal. non man ay waxi ay yooyu man intéressé ma ma ci hmm. mooy ndaw yi ñu am ñu am liggéey loolu ma intéressé. voilà Yves Zale Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. jaajëf voilà may lay remercier ci sa disponibilité nga nekk euh, coordonnateur bu regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. ok